li ñu mën a constater mooy dañuy gis ni dans chaque commune les douze communes que compte désormais le département de Pikine ñoom ñëpp am nañu un candidat ci bannière Gëm sa y compris la commune de Pikine Nord avec à sa tête Maguette Thiandoum gars yi tàccu leen Maguette Thiandoum bu baax le président du mouvement Yamalé et kenn du wax ni kenn xamu ko à Pikine Nord di wax ni tey la communauté Maures du Sénégal ñëw nañ fi ànd ak le président Ahmed Carrière ànd ak aussi Ahmed Wiss ànd ak Sidi Dieng tey dañ fi ñëw wax dëgg yàlla parce que minute mii toog tey euh, bokk ci liste Maguette Thiandoum nekk sunu membre di doomu naar mu investir ko kon day baax mu gis ay mbokkam looloo waral tey président bàyyi ay yitteem ñëw pour dooleel ko. man jàppale xale yi rek laa nekk ci àdduna bi. gis bii maay président partenariat bi li nga jóg dina joxe ay kits scolaire muy benn muy ñaar am na solo waaye dama bëggoon aussi je profite de l'occasion nga xoolal ma sama lycée bi nekk na loo xam ne lu doy waar toutes les zones du haut fa tasee. xale yi mënuñu dugg classe maam Yelli Badiane sonn na te cette année am nañu 77 virgule 77 pour cent bu bac ko bien aimé excusez-moi de parler tubaab que que vous vous y mettiez à bras le corps service jege bugaan torop di ko jàppale ci liggéey bi di ko jàppale eh, ci wàllu information di ko jàppale ci wàllu plateforme am di ko jàppale ci lépp li nga xamante ni mi koy def Abdou Lahad Ndiaye c'est également un acteur de développement Lahad à toi la parole

ngeen may ñu tuuti rek ak déglu ñu bëgg a wax kàddu yu am solo yoo xamante ni ñaan nañ suñu borom buñ fi buñ waxee ba noppi ku nekk mën cee jariñ parce que li ñu dajale fii dafa am solo donc ñu bëgg ñu may tuuti nit ñi déglu ba mën a ban mën a jàllale kàddu yi ñu bëgg a jàllale li njëkk nag damay nuyoo nuyu assistance bi yépp rawatina ki ñu fi dajale mooy président Maguette Thiandou monsieur Daour Ndiaye moo nekkoon maire ville de Pikine yore na ko 9 ans def ci liggéey bu am solo man xam naa ci lu bëri moom tamit xam na ci lu bëri waaye du fi xaj di nuyu aussi ma sœur Awa Cissé l'infatigable xam na ci lépp luy jigéen ñi di dox ci Pikine Nord. da ciy dugal loxoom ci lay dox guddi ak bëccëg may nuyu waa Pikine ñëpp toog ku lim di nuyu ñi ànd ak Maguette Thiandoum ci mouvement Yamale di nuyu aussi waa Gëm sa bopp bi fi teew yëpp man nag dama fi taxawee ñaari casquette parce que Bougane bu wootee Gëm sa bopp man dama koy gëm man ci banque laa doon liggéey banque Atlantique un jour woo ma téléphone ne ma monsieur Ndiaye dama la soxla pour nga ñëw liggéey ak man. ma ne ko monsieur Guèye je suis très honoré de ton appel mais mënu ma liggéey ak yow ndax mënoo maa fay man je travaille dans une banque et là je me plains pas le gars m'a dit sëñ bi xool naa ñëpp xool naa fu nekk mais yow laa bëgg a ndax yow yaa ma doy léegi dis-moi combien il me faut pour t'avoir donc moom tey boo gëm sa bopp dañ koy gëm gëm sa moo tax man ma dem tay ànd liggéey ak moom waaye li jëm ci wàllu Pikine moom a mës a musuma politique musuma bokk ci benn parti politique mais bu maagee jugee di sama frère ñu yàgg ànd ci développement ci partenariat maagee ku xam turam acteur de développement la mais lan la ñuy doyee maire lan mooy fonction lan mooy fonction maire laa leen di laaj mooy suqali gox développement lañ koy doyee Mais donc, vous avez un acteur de développement qui veut devenir maire et qui est le fils digne de, ce, de cette commune. Donc, vous avez l'âge, ça va, vous avez l'âge, vous avez l'âge, vous avez l'âge, vous avez l'âge, une fois. yéen ñëpp ñi ko xam ak yéen ñi mu dëggal peut-être mën ngeen a bañ a gis dëggantaan capacité parce que on dit souvent que on n'est jamais prophète ce soir mais ñun yàgg ànd ak moom ci liggéey àgg ak moom ci taxawaay ak ci xam-xam. ak ci ay orientation ak yeneen ci Pikine Maguette tey bu laajee Pikine tombeek ñun ñu ñu bëggoon ñu nag waa mouvement gëm sa bopp parce que la logique mooy mouvement gëm sa bopp day xool fu koy bu nekk ki fa gën a ki fa gën a yaakaar ki nga xam ne ak askan bi moom ci moom lañ ëpp yaakaar ki nga xamante ne loxoom set na ñooñu lay mën a àndal liggéey ak ñoom donc Maguette aussi de son côté il avait vraiment du mal à dem ànd ak ay parti politique parce que Maguette du politicien donc sur sa Bougane comme personne moom li mu yor du politique moom aussi mouvement de développement la yor donc moo tax am ñaar bu ñu mënee ànd war nañ ci am yaakaar Maguette depuis le depuis bi ñu ko xamee ci ECOPEN ba tey jii bi muy yor Reprodev ak yeneen organisation yi mu yor yëpp. luy jëmale kanam doomu aadama ak luy lu ñuy fexe ba génne nit ñi ci précarité indi leen ci dans dans le bien-être social ci lay dox boobu ba léegi. donc nag ñu ngi ñaan ci turu waa Pikine ak ñëpp ñu jàppale parce que mairie li ci am solo mooy fexe ba askan bi gis seen bopp te moom tàmbali na ko donc. situation bu mu toll mooy laaj mairie bi pour mën a àggali liggéeyam vous voyez ñi toog nii c'est des partenaires c'est des partenaires yoo xam ne ils sont prêts à accompagner Maguette ils sont prêts même à faire un an ici pour mën a réussir politique bu mu bëgg a teg biir Pikine ak développement bu mu a teg biir Pikine non rawatina Pikine bi yëpp donc nag ku bëgg ku bëgg jariñu ak ku bëgg loola musal wala ak ku bëgg loola jariñ pour man war nga mën a dugal sa loxo tay jii boo ko yëgul woon la ci ak koo mënti doon nga war a mën a ñëw jàppale Maguette Thiandoum le président de futur maire de Pikine Nord waaw fi daanale kàddu ndaxte bu ma ko monopoliser mais di leen wax ne li nekk ci xol bi moo ëpp fuuf mais comme dafa guddi il faut ñu peese kàddu bi foofu di jaajëfal ñëpp. la discipline qu'on gagne des élections c'est dans le règlement et le respect qu'on des élections te loolu mi ngi ci ñoom nit ñu am xam-xam lañ li ma neex ci list coalition Gëm sa bopp dañu dajale ay nit ñu am xam-xam ñu ci mel ni Maguette Thiandoum ne tant d'autres bien sûr moo tax espoir day judduwaat monsieur le à vous la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di seen tur seen sant. présenter leen candidat yi nga xam ne ñoo fi listé na fi nekk ci au niveau de la ville de Pikine et la coalition Gëm Sa Bopp. damay commencé ci docteur Assane Ka mooy candidat ci Thiaroye Gare sanu xarit Père Camara ñu koy wax Moussa Camara moo nekk Dibé Thiaroye Kaw Ibrahima Ndiaye moo nekk Pikine Est mais mu jëlee nag mooy seen comme seen bokk seen lépp dem candidat au niveau de la commune ñuy nuyu waa Pikine Nord yëpp ñu ngi leen ci turu Bougane parce que moo fi waroon ñëw liggéey bi ni mu demee moo tax ma ñëw teewal ko. sensibilisation bi ngeen def fii au niveau de lii ñu fi gis dal na sanu xel yaakaar naa ne bu ñu yàlla démbalee ba ñu egg le 23 janvier 2022 seen doom bi nekk seen gannaaw di ngeen ko jël teg ko ci mairie bëri. vraiment Maguette Thiandoum dama ñëw Awa Cissé boolema ak moom muy nit ku dal nit ku am ci voilà yaakaar naa bu soobee yàlla gis population bi. voilà am na Pikine Nord jox nañu cër màggat te dinañ ko jàppale ci ak ci biti. man nag yaakaar naa dama présenté sama bopp. Pikine ku ma xamul aussi dégg nga sama tur. Eh, yaakaar naa boo defoon lu ñaaw ci Pikine dootumaat fi taxawaat fii naan damay xëccewaat mairie Pikine te bu soobee yàlla dina ànd ak mairie ma màggat ak yi ma àndal ñu delluwaat ci mairie Pikine jëlaat ko ci loxo affaire bii bu soobee vraiment pour ma ñëw guddal comme guddi na sant nañ leen gërëm nañ leen te wax ji nag du ay waxi kese parce que janvier bu soobee yàlla wax ji daf ko jaratul. ñu leen seen carte ngeen voté langoor condition gëm sa bopp bi nga xam ne président Boubane moo ko jiitee vraiment ñu ngeen fal seen doom fii ci Pikine noonu ñu leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum. Euh, ci mbooloo mi euh, yàlla def na ne euh, wax dëgg yàlla xew bu ni ak langue bu ni mel yaakaar naa ne bu ñu doog a am fii surtout ci tante bi moo tax damay am mbégte vraiment di sant yàlla euh, di gërëm waa Pikine Nord ñi nga xam ne ñoom ñoo déplacé wu ñëw tey jii fii surtout euh, supporté yi nga xam ne moom mooy daje bi nga xam ne moom la ñuy def tey muy suñu investiture mais balaa may tàmbalee damay gërëm damay gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi wax dëgg yàlla euh, tey jii lii mënoon naa bañ a am waaye bu amee dafa fekk ne xale yi yamale yii ak surtout équipe yamale bi ñoom ñoo taxaw depuis bi ñu créé yamale ñu taxaw pour que au moins lépp loo xam ne jëm na ci wàllu askan bi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu gox bi ñoom ñu dugal seen loxo mbégte la pour ñun mbégte la aussi pour la population bi Pikine Nord xam ne tey jii ginnaaw euh, li nga xam ne mooy liggéey bi ñuy liggéey dina am maire bu euh, euh, kilifa boo xam ne nekk na fi député ñu yaakaar ne war nañ ko mën a fal fii muy le département de Pikine euh, di gërëm aussi ci biir remerciement bi muy soxna Awa Bougane Cissé xam naa ne moom wax dëgg yàlla a jigéen ju mën góor la waaw ndax lu nekk def na ko pour que ñu mën a ànd yàgg na ma soññ sax ne ma màgget jógal waaw yàgg na ma wax ne ma Maguette jógul mais jàpp naa ne tey jii euh, wax dëgg yàlla euh, teewaayam euh, ak mbir mi ngi fi def donc dina am solo trop. ci biir remerciement yi tamit du ma ci nga xam ne ñoom laa liggéey bi depuis boobu ba léegi muy vraiment ñoo xam ne bu du ñoom tey jii làmbaay ñaaw parce que ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñooy wàcc ci kër gi ñoom ñooy dem fépp pour surtout nit ñi xam ne nga xam ne moom mooy yemale. de euh, li ma ci bàyyi muy Ismaïla Diallo nekk sama jarbaat muy Aliou Ngom euh, te nga xam ne moom it moom ci groupe bi di Cheikh Tidiane Sow surtout Cheikh moom xaw ma anamoo mais yaakaar naa ne euh, moom moo ngi ci organisation bi talul leen waaw bëgg rek lépp réussir moo tax xam naa ne bu paree dina tëdd nelaw ay semaine balaa muy jógaat moo tax dañ koy ñaanal yàlla may ko jàmm. yàlla may ko wér ak kattan ah, ci loolu ah, di beral loxo aussi Mina Minatu Fall jigéen bu mën góor waaw wax dëgg yàlla ah, woon moom it lambay ñaaw ndax taxaw na ci taxaw bu rafet li mu war a def def na ko te xoolu ci lenn xaar ci lenn donc moo tax dañ koy remercier di ko féliciter et di remercier aussi surtout waa kër ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci biir yamale ak ci jàppale donc loolu yëpp bu ma dama bàyyiwul kenn euh, jéem ma fàttewu ma kenn tey ci ci remerciement yi ndax gis naa ci biir mbooloo mi ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, sama kóllëre ak ñoom sama ànd ak ñoom ànd bu yàgg la euh, muy Mbaye Ndiaye mëne ci ginnaaw tey jii dëkk fii ci biir koñ bi yàlla def ñu nekk kóllëre boo xam ne kóllëre bu yàgg la Euh, muy sama xarit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw muy sama ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyandoo tey jii mooy ay employés mais ñëpp ñëw nañu pour jàppale pour wane que tey liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la. Euh, di ci biir remerciement yi aussi di remercier euh, surtout sama ne moom mooy waa Yewwi bi donc je pense que am na ñoo fi gisoon tout à l'heure donc ak Birane Lo donc Matar vraiment ñi nga xam ne ñëpp ñëw nañ fii di leen remercier ci seen teewaay. Euh, di remercier si euh, li nga xam ne mooy les imams imam yi ak surtout oustaz yi moo tax oustaz Birane euh, wax dëgg yàlla waroon na fi jël kaddu dama kaa gisul ci mbooloo mi mais moom wax a waxtaanee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy oustaz yi dañ ne woon dañuy jël kaddu donc firndeel jël kaddu wax ci si turu li nga xam ne mooy oustaz yi pour wane. suñu jàppale si li nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy liggéey euh, délégué de quartier aussi bi nga xam ne moom mooy Baara Lay ak surtout euh, délégué de quartier Diop vraiment di leen remercier di leen gërëm ci seen teewaay ndax yéen askan bi yéen a yore doxal bi moo tax lépp loo xam ne wax dëgg yàlla euh, def ngeen ko donc da leen ciy gën di remercier aussi ci biir remerciement yi les communauté yi fi teew muy communauté Fulaadu yi ak communauté Moori ndax gis nañ seen taxawaay Euh, gis nañ seen jàppale moo tax vraiment dañuy am mbégte ci seen teewaay fii tey ñu fi teew wax dëgg yàlla ay ay ay ay ay ay star rek lañu moo tax moo bëggoon suñu ñaari mbër yu ñoom euh, muy Ziza ak surtout euh, Jara Jara man ngeen tàccul ma leen parce que la ñuy parce que ay ay ndaw la ñu nekk ay mbër mais vraiment ñu tey ji ñëw ne dañ ñuy jàppale ci suñu liggéey bi ndax teraanga bu ñu seq ak ñoom wax dëgg yàlla euh, dañ leen di dañ leen di gërëm euh, di leen féliciter. ci biir félicitation bi aussi du ma fàtte euh, wax dëgg yàlla muy sama naataangoo yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi muy Cheikhouna Ndiaye di Ibou Ndianor parce que depuis bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi ñoom ci terrain bi lu nekk def nañ ko euh, jigéenu Daaru Xudoos ñoo ngi leen di gërëm waa Aïnoumane 2 yàgg na ñu def ci wàllu développement depuis presque plus de 26 ans ñoo ngi travaillé jëm ci wàllu ci wàllu développement. ak waa école neuf Thiandoum. ak waa école neuf Daaru Xudoos ñëpp ñoo ngi leen mais euh, euh, depuis 26 ans ñoo ngi évolué ci wàllu développement te li ñu intéressé mooy doxal suñu gox. dama ne tante bi àndal euh, bi tante naa fi tante bu dul tante Guinée ndax activité bu rëy organ mu yàgg nañ ko fi organiser te lépp ci wàllu développement moo ko ci woon. donc tey jii buñ ñëwee ne dañuy politique dafa fekk ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di politique surtout ki fi nekk di maire li mu fi liggéey daf ñoo doyul. rax ci dolli ñi nga xam ne tamit jàpp nañ ne dañoo bëgg a jëli mairie bi ñeen ci ñoom dañoo jàpp ne seen doxalin des na moo te ñun bu ñu taxawee li ñu bëgg yàlla mën nañu ko may ba ñu changé li nga xam ne moom mooy commune bi te commune Pikine Nord pour que ñu changé ko am nañ ci xalaat am nañ ci xam-xam Euh, commune Pikine Nord am nañ ci xalaat ci doxal bi am nañ xalaat ci liggéey bi te am nañ xalaat tamit ci lu ko développé sànq rek ñu ngi may wax euh, liggéey bu nga xam ne suñu partenaires yi déjà yu fi ñëw gis ngeen ci ginnaaw ay partenaires françaises ñoo fi nekk ñuy liggéey ak ñoom euh, ñu nekk fi stage depuis presque un an ñu war ko fi nekk di liggéey surtout na la ñuy def ba dimbali askan bi dimbali gox bi te pourtant ay xale tamit yoo xam ne ay xale sénégalais ñoom la ñuy jël war leen yóbbu France te lépp ci yóbbu bi ci suñu liggéey moo ñu ko may. donc pour wane que ne ñun nous sommes une organisation boo xam ne dañuy may chance les jeunes ndax waajur yi ku leen bëgg a dimbali da leen di jàppale ci seen i doom ndax waajur yi sonn nañu ku leen dimbali lañ bëgg pour seen xale yi am liggéey wala seen xale yi ñu wala boog ñu am loo xam ne mën nañ leen ci dimbali loolu moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy fexe ba commune bi nga muy Pikine Nord muy fexe bi nga xam ne mooy le département de Pikine tey jii ñu xale yi am ay opportunité d' emploi yoo xam ne ay opportunité d' yu leer na fexe ba képp koo xam ne tey jii yaa ngi nekk Pikine nga mën a am accès ci yenn information yoo xam ne dina la dimbali ba au moins loo mën a jotee nga jote ko ndax nit ki kat boo ko bëggee dimbali da ngay fexe xool lan mooy jafe ñu génne ko ci jafe mais bu fekkee ne da ñëw rek euh, euh, xool li nga am nga jox ko dama ne bu subaa da ngay ñëwaat nga joxaat ko mais nit ki boo ko bëggee dimbali da ngay xool luy jafe-jafeem nga xam ne boo ko dimbalee ki dalee leer ne kii bu ëllëgee keneen du ñëwaat di ko jéem a dimbali ndax jaar na fa ba pare. donc ñun loolu mooy suñu tànk loolu mooy suñu mébét suñu bëgg-bëgg yëpp ñoo ngi ko def ci naka la def ba Pikine Nord ba naka la ñuy def ba département de Pikine tey jii ñëpp képp koo xam ne ndaw nga. képp koo xam ne jigéen nga képp koo xam ne artisan nga sa liggéey ñu dimbali la ci ba au moins nga jógee ci euh, ci ci ci ci lu ndaw loo doon am am lu ëpp loolu te loolu moo ñu tax a jóg loolu moo tax tey jii ñu ànd ci ñun ak waa gëm sa bopp yaakaar ne élection yi di ñëw muy élection locale yi dinañ ci samp suñu ndënd donc woo leen ci ngeen woo leen ci ngeen jàppale ñu ci incha allah ba ñu ànd ci liggéey ci liggéey bu mucc donc vraiment maa ngi gërëm di sant ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ci biir sant bi euh, fàttewuma aussi sama naataango Gana Faye muy en responsable de banque tey jii moom mu bàyyi lépp ñëw daal ne day ñëw ànd ak ñun ci biir liggéey bi donc pour wan leen ne fii ay responsable rek ñoom ñoo fi teew ay responsable rek parce que li leen yitteel mooy naka la ñuy def ba doxal gox bi li leen yitteel mooy naka la ñuy def ba changer l'image de Pikine li leen yitteel parce que ñoom ñëpp ku ci am nga sa liggéey am nga sa teranga macha allah mais ñu ñëwee bu dugal suñu loxo ci mbir parce que dañoo jàpp ne liggéey bi dafa war a liggéey bu ñu lëkkale ñoom ñëpp suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu sonn ñu jàppale leen ba au moins seen am am mën a yokk xale yi nga xam ne amuñu xëy ñu jàppale leen ba au moins seen xëy mën a mën a mën a antu donc loolu mooy suñu mébét te loolu lañ bëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah su ko defee rek gannaaw bi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, nekk def nañ tey di li nga xamante ni moo nekkoon déclaration bi ñu ñëw fii rek daal di bëgg a waxtaan ak euh, ki nga xamante ni mooy soxna Minatu Fall ñaari baat ndax gis nañ ni mu doon kenn koo xam ne wax dëgg yàlla ci biir mbooloo yemale kenn la ci ni ñu def rek mooy dañu nuyoog moom bàyyi ko mu nuyoog mu Sénégal bi lañ dégg rawatina ci site bi nga xamante ni mooy Salam Vision Mina ñu ngi lay nuyu di la bu baax a baax ñu gis ni tey sa sa candidat sa góor sa xarit macha allah rabi Maguette Thiandoum nga xam ne mooy président mouvement Yamale doon def tey ji déclaration de candidature am ci élection locale yi nga xamante ni ñu ngi jëm si naka ngeen waajee bis bi ba am ci réussite bi nga xamante ne am ngeen ko ci tey. ah macha allah bés bi nag nekk na loo xamante ne dañ koo waaj ci même pas une semaine. Mhm. waaye yàlla mi mhm. a baax. Mhm. nañ parce que réussir na total. alhamdulilah macha ñu gis ni tamit wax dëgg yàlla bi ngeen wootee te jamono bi nit ñi dañoo dem ba yeewu ci politique bi nga xam ne moo fi daan am mais tey jii gis nañ ni tey mbooloo mu bëri dafa wuyu si malgré sol nañ ay tiset mais ñi ñëw nit ñi ñëw nañu mais dañ ci seetlu tam jeunesse bu bëri bu am doole boo xamante ne diggante góor ak jigéen lan ban liggéey ngeen liggéey ba tax ci ne jeunesse boobu ñu wuyu si leen tey mm, parce que àddina toll nañ foo xamante ni kenn naxatul kenn mm-hmm. parce que ku xool di nga gis ku mm-hmm. déglu di nga lu leer tey tam Maguette dafa nekk nit koo xamante nit spécial nit ki nga xamante ni dama naan chaque jour bu wax jëbëree du moom waaye bu jëf jëbëree moom mm-hmm. dafa nekk nit koo xam nit développement la. Mm-hmm. dafa nekk nit koo xamante ni macha parce que fu mu jaar dafa bëri macha allah. Mm-hmm. di ko ñaanal tamit yàlla na romb fii. amiin yaa rabbal aalamiin wax dëgg yàlla parce que xale yi toll nañu foo xamante ni dañuy xëy suba teel. sëtt nga xale di xëy bàyyi seen i téye bàyyi seen i soxla bàyyi seen lépp. kon ku lay nax doo tax nga yàq seen nelaw du yeewu. macha allah mu doon lu am solo mais ñu gis ni tey jii ci diggante bi parce que man mi nga xam ne assisté naa tey première réunion bi nga xam ne moom la mouvement Yamale woote woon nga woote ko fii tey sa sa biir kër première réunion bi ci diggante bi booba ak tey matul juróom benn weer mais te booba bu ñu koy xool ci ñaar fukki nit ñoo fi nekkoon mais tey ji bu ñu xoolee population bi nga xam ne daje nañ ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir euh, investiture bi ngeen doon ni kon yéen ci diggante bi noppaluwu leen boobu a ngi macha allah nekk na mbir moo xamante ni wax dëgg yàlla amul kenn koo xamante ne dañu laa wuti nga jóge ay yax ñoom. Mhm. képp ku fi ñëw fekk suñu ci bés bi rek génnoo biir Pikine. wér na rawatina biir Pikine commune Pikine Nord. Mhm. ñuy waa Pikine Nord kese ñoo fi dajaloo. Mhm. ñoom kese ñoo ñu ñëw wisi. parce que dama ne mouvement Yemalal ñëw ànd ak léegi coalisé ak waa gëm sa bopp. dafa buy bi dafa duru borom parce que ñun waa yamale dañoo gëm suñu bopp mhm. kon ki gëm boppam bu ñëwee fekk suñu mbir mi day gën a neex mhm. euh, lan moo leen poussé ci ba ngeen ngeen dem ànd ci biir coalition gëm sa bopp bu buggaan ngay dani parce que ñun dañ naan waa mouvement yamale ñun kaaru dëgg la mhm. dañ naan képp ku bëgg dëgg rek da ñëw dugg ci bis bi parce que bés bi bu la rëccee moom ba toujours bés bu dëkk parce que dëkk bi fii la parce que Maguette dafa nekk nit ku am ambition nag. Mhm. nit ku dëkku tam lépp lu mu la wax rek dëgg la. parce que nit da nga politique tey nga dem invité ay nit jël ay gars jox leen. Mhm. jox kenn ku ne voix mu sol. Mhm. kenn ku nekk mu solal lu cet. waaye ñun yàlla xam na ko beneen tamit xam na ko ni amuñu kenn koo xamante ne ñun invité nañ ko tey suñu suñu mbooloo bi yëpp. koo xamante ne solal nañ la voile wala ñu jox la 2000 déplacé la ñoom indi la. Mm-hmm. amul surtout ñëpp gëm-gëm ak gis vision bi nga xamante ni macha allah suñu leader. Mm-hmm. am na mm-hmm. moom la ñëpp gëm ne ñoo fekk si. mu doon lu am solo wax nga ko te ñëw naa itam ba siège ba fële ci Dominique fekk leen foofu ci seen bureau yi mais léegi pourquoi yamale boobu ngay nga xam ne moom ngeen tuddee seen bopp dama gis ne tey ji boo xam ne am na ci biir mouvement bi plus particulièrement yow sa diggante yow jigéen ñi nga xamante ni mooy ndaw ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñoo ñoom ñoom nga àndal complicité boobu lan la au juste waaw parce que dafa nekk loo xamante wax dëgg yàlla mhm. kenn ku ne boo jiitee njaboot rek mhm. dañ naan te kilifa la moo ñu yaree dëkk mhm. ànd booloo mhm. parce que Maguette dafa jël jigéen ñëpp dénk ma ko mhm. jël ma def ma responsabilité femme tout à fait de mouvement Yamale kon donc képp ku ñoo fekk si man ci mouvement bu dee sama yaay la damay ji dañuy jiitu kooku day jiitu ma nekk si ginnaaw bu dee sama mag la damay jiitu kooku nekk si ginnaaw bu dee sama rakk la tamit dama leen laaj toujours seen avis loolu leen bëgg ñu doxale loolu leen bëgg ñu def kon ñun suñu mouvement bi mën nañ ko booloo parce que ki ñuy jiital daf ñoo jël yar ñu ci boppam nampatal ñu ci dëgg. Mhm. ndax maa ngi nekk nit koo xamante loo koy wax sax da lay bàyyi xam gëstu bi ko waxoon démb ak bu tey parce que c'est la mu doon lu am solo euh, ma yaa koy wax léegi nii mais dama dama gis dama amaat beneen seetlu boo xam ne tam seetlu naa ko ci diggante bi ndax nee naa la première réunion bi nga fi njëkk woote ak tey bi ñu ko bu première réunion bi vingtaine de personnes trente personnes ñoo fi nekkoon tey en tant que Minatou Fall di set ci yonent bu tedd bi alayhi salaatu wa salaam waat kenn xamuloo ci politique toog nga ci sa première réunion nga ne musuma politique kon bu ma demee ba politique am na lu tax ma dugg ci politique mm-hmm. te politique bi amoon ak politique bi ngeen def bokkul mm-hmm. te tey jii mbooloo mi fi teew wane nañ ni politique bi amoon muy politique politicien joxe tiset joxe 2000 joxe ay voile mm-hmm. tey defu leen ko te tey ji li fi teew ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kon secret bi nga gànnaayoo yow en tant que surtout yonent bi en tant que ban secret la man secret boobu laa bëgg nga wax ko su ko defee ah. askan wi jàng ci yow ci loolu parce que loolu c'est pas donné à tout le monde soo ma laajee ci loolu damay sawar mhm. sant yàlla bu baax alhamdulilah dama naan alhamdulilah rabbil mhm. sant naa yàlla bu baax a baax mhm. bi ñu yàlla mayee ñu fekkee nga ni woon ñun matuñu woon vingtième de personne parce que am nañu mooy dégg ñu bëri ñu mouvement yemale trois personnes la mais dañ naan équipe boo xam bu dynamique yi mu dëgër mu mhm. que day neex man samay góor laa nekkal mhm. dama naan Cheikh Diane moom laa nekkal mhm. muy sama grand frère ni bokk nday bokk bàyyi baax ku sonn tey macha ma koy sant di ko gërëm bu baax ñu ne waaye man nekk ak sama frère muy Aline Ngom kër ba ma jàppee loo xam ne comme Aline Ngom mu ne ma naa man ko ñëw am na commencé dañ dem instant dafa ñëw ànd ak fii la ma fekk te boobu ba tey dafa taxaw ñun macha allah yal nañu yàlla defal cat. Mm-hmm. parce que say lañ rek bu dëgër di gërëm équipe bi yëpp. Mm-hmm. Ismaïla Diallo mm-hmm. bàyyi ma kenn kenn gànna góor bàyyi ma kenn ñëpp lay gërëm la. waaw boo euh, balaa ñu lay laaj kàddu gu mujj gi tey ji en tant que en tant que responsable des femmes doon deuxième. topp ci Maguette Thiandoum. tey jii ban gis-gis nga am ak lan ban yéene nga am tey ci gox bi nga nekk tey jii bu yàlla defee jàmm ba tey jii Maguette Thiandoum doon la maire de Pikine yéene bi ñu am bëri su ma mhm. ko bëggee wax fi la ñuy fanaan mhm. ñun dara ñoroon ñu mhm. ñu defar Pikine Nord dara ñoroon pour jàppale askan bi dama ne Maguette li muy def nag mu laaj ko moo ëpp foofu lu mu fasal Maguette fasalul dara nit day feebar ñëw taxaw war a faju Maguette dinaa mi naan ma mën naa mën def naa si naan Maguette ngay na ci mbooloo mu dugal loxoom lem ko gis nga sa booy maye da ngay tàmm baatre yi sa mm-hmm. loxo di maye di baat mm-hmm. mais Maguette dundeewul na sax da loxo mm-hmm. ñu roof la ko ndànk te boo demee moo tax sànq géwél bi nee na ko wokku ma ndax parce que li muy joxe da koy nga bëggul keneen gis ko bëggul keneen gis ko noonu lay fonctionné nag mën ngaa ñëw bureau mu tëjoog yow génn te doo xam ne mu defanteeg yow. Mhm. ñun loolu la ñu yoree ñun groupe sutura lañu. macha allah message bi nga xam ne yaa ngi koy lancé euh, mouvement bi waa mouvement bi di ko lancé plus particulièrement population bi nga xamante ni ñooy population Pikine Nord ñi nga xamante ni tey jii ñoom ngeen di xaar ñu jël seen kaddu dem ca bañ gàcce ya sànni leen ay xob pour tey jii ngeen toog ci Pikine changé xar kanamu Pikine bi ban message lay doon kon. en tout cas Maguette dafa ñëw ànd ak gëm sa bopp. Mhm. fekk fi góor bu gëm ànd ak jigéen bu gën boppam. wallaay ndeysaan. ñun dañoo gëm suñu bopp ñun waa mouvement Yamale. Mm-hmm. kon lu ñuy wax askan bi nañ ñu jàppale. mu mm-hmm. ñu jàppale di woote ñu pour naxante. Mm-hmm. wootante pour parce que ñun ñëpp on est fii ku fi nekk rek man ñëpp laay wax. tout commencé ko ci kaw ba ci suuf. leader bu fi nekk sama grand frère. macha allah waaye féete dafa am. ah mënut a ñàkk. wax dëgg yàlla parce que mosuma politique. Maguette mu fëgg sama buntu jël ma ma ànd moom. waaye nag ñoom ñëpp laay wax samay càmm yi. dama naan li gën rek yàlla na ko yàlla def mu fekk mu gën ci ci aspect bi ki noonu yëpp mm-hmm. waaye dëgg bi moom moom moo a rawatina muy ne mooy Maguette Thiam mm-hmm. mm-hmm. la allah kon daal fi ne day mel ni moom le 23 juin incha allah rabi euh, Pikine Nord daal fi ne ci loxo Maguette Thiandoum ak mouvement ah, ah, Yamalé ah, parce que ñun ñooy gaaru bi dama naan bi nga xamante ni mhm. mooy bisu dëkk dëkk mhm. mooy suñu gis ñun mouvement Yamalé mhm. ku rek ba mu rëcc la dootoo yéeg baadu kon fexe la ñun yéegal leen ñu ci ñu dëkk waaw incha allah <laughs> <laughs> jaajëfal nañ la bu baax a baax jaajëfal nañ la bu baax a baax macha allah di leen sant wax